alhamdulilahi rabbil alamina ya rab irfa maqtaka wa gadabaka anna ya rabbi la tuaqizna bima faala sufahau minna ultuf bina fi ma jarat bika almaqadiru fa innaka ala kulli cheyin qadirun wa bilijabati jadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi ne ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ngeen mën a ne di ànd ak seen télévision bi di 2STV seen rajo origine FM 88.4 ñu del seeg yéen seen jotaayu daara ji di tafsirul Quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ci bis bu màgg bii di yowmul jumaa ajjuma ànd ak yi muy àndal rek lu ñu mën ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko def ñu mën suratul kahfi buñ ko fàttee di jàng macha allah yàlla nañ yàlla nangul suñu ajjuma nangul ñu suñu jaamu yàlla daf ñu dëgg-dëgg sàmmal ñu suñu iman ba dara bañ ci rëcc su ñu demee rek mu bég ci ñun musal ñu nag ci jàngoro bii nga xam ne jaaxal na ñëpp te dara jaaxalu ko ci moom yàlla yàlla nañ ci musal yàlla nañu sàmm yàlla ñu aar macha allah xam ngeen ni ñu ngi ak yéen ci seen saar bi di surtout saafaati tafsir bi ñu mujj def ak yéen ñu amoon ci quatre-vingt-deux verset te ñu war a jël quatre-vingt-troisième verset maanaam saar bii ñu nekkoon di surtout saafaati amoon nañ ci juróom-ñett fukki aaya yu teg ñaari aaya te ñu war a jël juróom-ñetteelu fukkeelu aaya bu teg ñetti aaya borom bi bi ñu fi jógee mu woon ci yonent yàlla nuux bu mu mu war a dal nag ci beneen yonent mu yonent yàlla ibrahim mu ni wa inna mu doore rek tey wa inna min shiatihi la ibrahim nee na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo doon dimbali noox ci lii ko yàlla dénkoon ginnaaw bi ñu ci jógee kat am na ñu ñëw sof li nga xamante ni sosoon na ko ñu ni mu ni bokk na ci ñooñu de yonent yàlla Ibrahim nee nañ nag diggante yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla noox li fi dox ci ay at tolloon na ci deux mille six cent quarante huit at wala deux mille six quarante années maanaam ñaari junni at yu teg juróom benn téeméeri at ak ñeen fukki at dox na ci diggante yonent yàlla nuux ak yonent yàlla ibrahim ci diggante nag seen diggante ñoom ñaar am na yonent yoo xamante ni jaarale nañ leen fi ku mel yonent yàlla huut ku mel yonent yàlla saalix ñooñu yëpp nag nekk nañ ci diggante bi ñoom it bay seen waar mu ni ibrahim moom it ah bokk na ci ñi nga xamante ni day ci farandoo nuux yi la bokk bokk ci kuréel bu yont yàlla nuux ji maanaam di ñëw rek di prôné unicité de Dieu li yàlla santaane mu bëgg ñu yam ci bokk na ci ñi ko doon santaane di ci yamloo nit ñi moom Ibrahim mu ni yàlla tagg ko tagg ni isjaa rabbahu bi qalbin salimin nee na yont yàlla Ibrahim day dikkee na boroomam bi mu ko dikkee nag mu ngi ko dikkee ci xol bu leer xol bu sel xol bu mucc ci ayib xol bu mucc ci yéene nit lu mu amul yonent yàlla Ibrahima melu woon noonu mu yàlla nattu na ko ci ay mbir ba tàyyi ba xam ni kii daal wax dëgg yàlla jàmbaar dëgg la bokkaalewul ak yàlla sikki sàkkawul moo tax ba mu ne yàlla arini kayfa tuhyil mawta yàlla ni ko awalam tu'min xaal balaa ah kay dafa ne yàlla bis yoonu yonent yàlla Ibrahima Pape Samba dafa xëy ni yàlla du ma bëgg nga won ma nan ngay dekkale ko dee yàlla ni ko Ibrahima yow gëmoo kon mun ko aha kay maa gëm dëgg sax nag waaye dama bëgg sama xol ak sama xel gën a dal wolof day wax ni weddi gis bokk ca wolof yi ne wax ni lu ne fàng kenn du ko jeex mbir mooy wër ba gis ko mu tege looy wërati jeex kay jeex na yàlla wax ko lam ko wax jëlal ay picc defal nii defal nii defal nii ba won ko ko ba mu ko ko wanee mun mun ko ah léegi nag leer na ma nii nag yàlla mën nga lu ne mu ni kon moom amul woon sikki sàkk moom nag dafa woon ci dëkk boo xamante ni baayam mu nga fa buur bu ñuy wax Namruus mu nga fa ak ñeneen waaye ñëpp a bon tout le monde di xërëm di def yu kenn xamul is qaala li abihi wa qawmihi ma taabud maada taabudoon mu ne yonent yàlla ibrahima day moom dafa wax baayam ak ay mbokk baayam ak ñëmu dëkkandooloon ca dëkk ba moom ibrahima yépp ay mbokk ni leen waaye yéen lan ngeen di jaamu nii laa bëgg a xam ay xërëm kun daal a ifkan alihatan duna allahi turidun kon yéen dafa mel da ngeen a bëgg a sos ay yàlla yu dul dara walis suñu borom bi di jaamu loola bàyyi yàlla loolu laa gis ci yéen moom yàlla def ko teel a jox xel walla qad atana ibrahima rushdahu yàlla nee ko teel a jox njub ak xel mu rafet teg ndaw am na loo xam ne xelam nanguwu ko yenn nit di jëf jëf joo xamante ni da lay sax reetaan yow léegi sax xel dootu ko nangu Pape fàttalikul ñëpp bi ñuy gën di tuut tànk am na genre foy yu daan def ay jeux yu daan def yoo xam ne xale yi def nekkatuñ sax ci yooyu kaay leen ñu door dàqeeg kaay leen ñu yaa kabat <laughs> kabat yaa kaay leen ñu ger tombeeg yenn sa ñu wër fii jàpp la dóor la fii dóor gaañ la yëf yi doof yëf yi doof mi jàpp nañ ni loolu moo xewoon waaye léegi xale yi léegi ñu ngi ñu ngi ci yeneen ñoom kay moytul ñu jaay la xale yi kay danga naan yàlla na ma yàlla dimbali bañ bañ maa jaay li ñu xam ci machine sa télévision sax da nga am problème yàlla xam na ni damay toog sama kër bëgga seetaan tele du ma xam sax nu ñuy taale télé ba damay mujj di leen woo ko jëcëg gën a ndaw ngay woo dimbali ma taalal moom ndax dafa am lu ma bëgg seetaan ñoom ñoo ñëw léegi taal ko taal bu gaaw génneel la la nga bëgg a seetaan wala ko nga xool lii may wax fi ne borom kër yaa ngi ci seen kër ñu ngi naan wallaay wax nga dëgg de yaa jënd sab télé lañ ca xam xamoo ko ca de téléphone dañu ñëw sa téléphone sax danga nga ciy am problème ñoom ngay woo ñu la ciy dimbali du nii di la wan nan laag téléphone boobu tëjoo sax yenn saay yi wax noo koy tijjee yooyu yëpp xamatoo ci dara mais xale tey ñoom dañoo fendi ci yu mel noonu yonent Yàlla Ibrahima moom dafa fendi woon de xam ni yii bàyyam yi di jaamu du li baaxul mu leen yéen da ngeen a bëgg a sos ay yàlla yu dul yàlla dara di leen jaamu bàyyi yàlla léegi kon fa ma zannukum bi rabbil alamina yéen lan mooy seen xalaat ci yàlla mi nga xam ne moo boobu moom moom mindee fi dangeen a yaakaar ne da leen di bàyyi noonu rek ngeen jaamu lu leen neex ngeen ñëw yowmal qiyaam dara du leen ci fekk lool ngeen yaakaar mais du demee noonu nag du demee noonu waru leen yaakaar mukk ni ñii suñu boroom da leen di bàyyi rek ngeen def lu leen neex noonu rek comme ça yoomal qiyaam ngeen ñëw dara du leen ci fekk du demee noonu de na leer fa ma zannukum bi rabbil alamin lan ngeen njort ci borom mbindeef fii yalla mii borom mbindeef fii lan ngeen njort lan ngeen yaakaar ni su ngeen defee lu leen neex noonu ngeen di mujj ak moom loolu laa bëgg rek ngeen wax comme ñoom soo masaana bëgg def benn mbir ñoom ni ko daan defee mooy da ngay xool nii ci biddéew bi xool biddéew bi ba doyal xool ci kaw xalaat soo ko wax ñoom noonu lan daan def mu ni yonent yàlla Ibrahima pour bañ a indi problème ak ñoom comme am na lu mu nar dafa utiliser ñoom ya ñu daan utiliser moom la utiliser pour yegg ci ay fin mooy lan fa nazara nazaratan fi nujum mu xool nii ci biddéew yi comme ñoom noonu la daan def xoole boo xoolee biddéew yi nii lu yàgg boo siggee rek am nga wax booy bëgg a wax am nga xalaat boo am ci loolu am na loo gis ñoom noonu lañ daan seete comme ñoom noonu lañu doonoon mu xool moom it ab diir ca biddéew ya fa qaala mu ni inni saqimun man di li ma gis mooy dafa mel ni man dinaa feebar de ndax booba ñoom ñu ngi waajal pour jaamu ji seen yàlla ya pour dem ci àll ba def seen yëfi rakkaaju yooyu te moom buggul dem ci seen loolu mu xool li muy xool rek ni ah man daal dafa mel ni ça ne va man dafa mel ni daal su ngeen di dem ci seen yooyu de du ma mën a dem de man yëg naa ci sama yaram ak tawat waxin la nag waaw yéen ñoo inna fil maaridi la man duhatun anil kadib am na ci waxin yi loo xamante ni nekk bul ko jàppee wax lu dul dëgg inni saqiimun jooju wax dafa garaaw xol sax day feebar waaye yëg na ni moom lii yi di jaamu moom àndu ci moom xolam day feebar ca lool du ko gëm du ko jàpp du ko fonk du ko téye parce que xol ba mooy feebar waaw waaw fa am ñoo xamante ni noonu la ñu mel seeni xol dafa feebar am nañ fii ku mel noonu ku ñuy wax Pape Sidi Fall rakkaaju foo ko fekk da nga naan sa xanaa xol ba dafa feebar waaw mooy rappeur bi ci suñu kër gi rek lakkal ñu ñëpp ko xam waaw dee leen ma ci ñaanal rek bu yàlla di ma musal ci moom moom yonent yàlla Ibrahima ni inni saqimun man de dama yaakaar ni seen rendez-vous bi man duma ma ci mën a présent parce que ma sama bopp loolu la yonent yàlla Ibrahima wax mu wax leen loolu mu ni fatawallaw anhu mudbirin ñoom comme dañ doon bëgg a dem ñu wan ko ginnaaw ñoom dem seen dem bàyyi ko fa fatawallaw anhu mudbirina ñoom daal ba ñu déggee loolu ñu bàyyi ko fa wan ko ginnaaw dëddu koog war jàpp ni kii wax yi dof rek lay wax ñu bàyyi ko fa dem faraaxa ila alihatihim ñoom ñu dem ci seen yàlla yeneen ya ngir lan jaamu ji leen waaw màggal leen jox leen cër ba ñu am waaye nee na ba ñu demee ñoom moom Ibrahima dafa dem ca seen yàlla yi dafa bàyyi ba ñu dem mu dem ca seen yàlla yi nga xamante ne moom lañ fa tegoon ginnaaw ñoom ba ñu demee parce que dañu amoon feet gu doon def chaque année bu bis boobu jotee dañuy génn dëkk bi yonent yàlla Ibrahima pour bëgg def li mu bëgg a def mun leen damaa feebar du ma mën a ànd ak yéen gars yi bàyyi ko fa dem. ba ñu demee nag mu wëlbati ku dem ci seen yàlla yi ñu tegoon ñoom ñëpp yàllay faaleen yi yàllay jaañeen yi yàllay mbengeen yi yàllay ñangeen yi ku ci nekk teg sab yàlla waaw xam naa léegi ñu ne ma bu gayeen yi waaw kon famille bu nekk ak seen yàlla ñu teg dajale leen ba ñu bari am na nag yàlla ju ponkal joo xamante ni moo féete yàlla yépp kaw Ibrahima ñëw ci seen yàlla yooyu fekk leen fa xoola mu ne yàlla waaye yéen fa mu ne alaa taakuluun yéen yàlla yi lekk yi ma gis ñu teg xaa yéen du lekk xam nga mooy yi xew rek ndeysaan ci suñu ruq yi ci kër yi xam ne kër yëpp am ruq nag samba suñu kër yi dafa am ay ruq ruq yoo xam nan la booy tukki ñëwul ci ruq bi mooy bi fi ñoon maam bàyyi woon yenn saa ñu jox leen ceeb yenn saa ñu teg fay laax yenn saa ñu teg fa soow yenn saa yi yenn saa yi kullin daal ñu indi seen yàlla yi ay lekk waaye Ibrahima xool leen ba seeg ñi ñin xanaa du ngeen lekk xam nga ay xërëm yu teg nga naan leen xanaa du ngeen lekk loolu du ñu lekk te du ñu tontu du ñu lekk te du ñu tontu léegi nag mun leen maa lakum laa tantiqun waaye lan moo leen daal ba may wax yéen te du ngeen tontu du ngeen wax maa ngi leen laaj fekk naa leen ñu tegal leen lekk ma laaj leen ndax du ngeen lekk xanaa nag li civilisé mooy ngeen tontu ma waaye lu leen daal ba yéen mënu leen a wax yëpp nag ay saboote la ay saboté la waaye jubluwu ci wax looleen xam na ni ñoo wax bi mu leen di laajit xam na leen xam na ne du ñu tontu faraaxa mu jóg rek alayhim ci ñoom darban bil yamini commencé rek jublu ci ñoom di faagaagal yàlla yi jël benn sémmiñam su ndaw di faagaagal di daaneel toj toj yàq yàq yàlla yëpp gis nga fekk ni bi ñuy dem am na ku ko déggoon maam yéen a ngi dem waaye baax na watallahi la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudbir yéen a ngi dem waaye su ngeen demee dinaa fexeel seen yàlla yu bon yi seen xërëm yi ngeen jàppe yàlla dinaa ci def lu bon bu ngeen demee da doon wax ci suuf am neex neex neex dëkkal bu ko dégg moo tax ba ñëwee fekk seen yàlla yépp daanu ñu song ko parce que dafa def lu garaaw nag Pape Samba xam nga Ibrahima dafa garaaw ñun teel Ibrahima dafa daaneel seen yàlla yi fekk fa nag ba yàlla ba ca gën a mag mu jël sémmiñ gi mu yoroon di di yàq yàlla yi moom Ibrahima mu wékkal ko yàlla ju mag ja ñëw ni waa kan moo def lii suñu yàlla yi mu ne ah est-ce que du waajee dafa mel ni comme ñoom ñëpp daanu nañ moom mu wékkoo sémmiñam mbaa du moom moo mer ci boole bi ngeen koy boole ki yeneen yàlla mu far faagaagal leen te ngeen a wax ak moom dama defee ni mucc de mi xoolal dof gi ñu dof mu wax leen ñoo ñaa ko yaa gën xam ne su yàlla yi duñu wax mu ne waaye lu dul wax lu ngeen koy jaamoo lu dul wax du gis amalu leen benn njariñ yéen a ko waxal seen bopp lu ngeen koy jaamoo yooyu yëpp nag ci yeneeni saar la ñëw ñu redoublé wul woon ci classe koor gee passé ñëw am xam nañ histoire yooyu mu ni kon faqbalu ilayhi yadifun ñoom ñëpp ñu ñëw rek song ko benn song commencé di ko wax lu bon moom yonent yàlla ibrahim waaye moom làmmiñam dammul ci poosam de gars yi bu ñu waxee ba pare qaala mu leen ataabuduna ma tanxitun yéen da ngeen di yett seeni yàlla ba pare wëlbati ko di leen jaamu yéen daal yéen a rakkaaju rek yéen lu seen problème nan ngeen di jële seeni yàllay bopp yattal leen seen bopp ci seeni loxo ba defar leen ba pare defar sa yàlla ba pare ni ko yaay sama yàlla Sidna Omar de moom réglé woon na ko moom Sidna Omar tukkiyam gu metti googa mu defoon ba mu ko defee gisatul lu mu xam ah xiif sonal ko fekk defaroon na benn yàllaam mu ni waaw man xiif gaa ngi may bëgg yóbbi fu ma xamul comme yàlla ji nag ci gâteau la ko defaroon mu ne téemaa wekki benn loxo yàlla ji rek sàq mi tuuti bu ma demee defaraatal ko beneen loxo ah dindi loxo bi mos dem ba si yàgg daal Pape gi mu ni waay téemaa dindi beneen loxo bi rek dindi beneen bi mos ma demee defal ko beneen def ba si yàgg mu ne téemaa coppati tuuti ci bopp yàlla ji rek mujj gi mu ni mën daal wàcc daanoo ci gën a gaaw naa lump yàlla ji su ma demee defar beneen yàlla nee na bu xalaatee loolu day ree moom Omar nan la mënoon a mele noonu ci dellu ginnaaw ci xel ba yàlla ji nga xam ne moom nga ne moo war a aar ba nga xiifee nga lekk ko ba pare di ko jaamuwaat yéen yàlla Ibrahima nii yéen di fekk loo xam ni yéen a ko yattal seen bopp seen loxo wëlbati di ko jaamu te wallahu yàlla xalaqakum wa ma taamaluuna yàlla moo leen bind ak lu ngeen mën a jëf ak lii ngeen defarit muy seen yàlla yit yàllaa leen bind yàlla leen bind bind seen yàlla yi ngeen defar kon yéen est-ce que am ngeen xel di xalaat ci ni ngeen di def ñu mer ni kii daf ñu yàpp defar suñu yàlla mu ñëw daadeel ko def lu ko neex ci suñu yàlla yi affaire bi metti ñu xam ni ñu xam ni li mu def jaaduwul ñuy wax ak moom mu ñuy dépassé di ñu yàpp mais kii il ñu jël ci moom ay mesures yu sévères kii buñ ko bàyyee nii ci dëkk bi du baax ci dafa yabaate kii xale bu yabaate la nu ñuy def ñu ne qaalu bnu lahu bunyaanan fa alquuhu fi ljahim ngay nii leen c'est très simple kii tabaxal leen ko benn tabax bu rëy ngeen def fa safara ba mu ba ba safara sa doy waar xamb ko ba mu xamb ngeen sànni ko ci biir safara sa safara su garaaw a ngoog safara soo xam ni picc mu mu romb foofa sax romb di naaw faaw mu daanu ci biir ndax tàngaay ñu war a jël yonent la Ibrahima sànni ko fa dañ dëgg gis màgget mu feebaroon sax day jóg koyoŋ ko jog yi dem uti benn matt ni dimbal leen dugalaale leen ko ci lakk gi parce que xërëm lañ xamoon kii bëgg leen cee jële ñu ni kii nañ ko fi jële muy lu garaaw nag ñu ni léegi nag nuñ ko fay sànni dañ dañ koy def ci genre mbaq lance-pierre yooyu rek sànni mu dem ndax ñoom sax ñemewu ñoo jege safara sa ñu ni kon defaral leen ko loolu tabaxal li benn béréb su ngeen ko waajalee def fa safara ba mu doy waar bu boobaa fa alquuhu fil jahimi ngeen sànni ko ca biir safara sax ñu def loolu yàlla ni lañ ca de mooy bu ko fa sànnee mu dee ñu dimbali seen yàlla yi ndax loolu lañu wax sax qalu harriquhu wansuru alihatakum sànni leen ko ci safara si dimbali seen yàlla yi bu leen nangu ko toroxal seen yàlla yàlla ni fa araadu bihi kaydan ñoom de dañoo nam woon pexe jëmale ko ci jëmm ju baax ji di yonent Yàlla Ibrahim waaye fa jaal naa jaalnaahumul asfalina ma wàcce leen ba zéro yàlla nee na dama leen a wàcce ba zéro wacci leen ba ci suuf ma def leen ñoom ñu suufee ñoom ñu doye di ñoom ñu torox ñoom ñu ñàkk fayda ñoom ñoo mujjee ridicule ndax lan fañ ko sànni yàlla non kenn du yonent Yàlla Ibrahima gis nga bi loolu amee malaaka yi dañ doon ñëw ki yor ndox mi ne ko ma yor ndox boo bëggee ma taw safara si fay mun ko ana sama borom mun ko mu nga fa na ma dal mun ko mun ko doy na sëkk xam gi yàlla xam li ma nekke doy na ma soxlaw ma sa ndimbal malaaka mi yor montagne foofa ni ko ma sotti ci suuf ci safara si lépp jeex ku ñëw rek mun ko merci yàlla xam na ci li ma ne xasbi allahu yàlla doy na ma yàlla ni tey nga xam ni ki nga doyloo moo doy ni safara si Ibrahima bu mu génn waaye yow nanga soppeeku li ñu miinoon ci safara mooy lakke waaye nanga nga sedd allahu akbar safara si yàlla ni safara si yow seddal mu sedd guy di sedd température bi changé ci biir safara si Ibrahima commencé liw liw gu garaw yàlla ni ko wa àndal ak jàmm gis nga bu ko bàyyi woon noonu Pape Samb ni ko seddal rek kon mujj gi Ibrahima day congelé ci biir safara si moo tax mu ne ko non seulement seddal waaye sedd bi àndal ak jàmm it nag wasalaaman àndal ak jàmm ala Ibrahima ci Ibrahima moo tax sedd gi mujj yem bu dul woon loolu day day mujj a congelé sax ci biir seddaay ba te moo ne ci biir safara loolu c'est impossible déedéet ndax nous sommes incapables waaye yàlla moom dafa capable dara impossible ci moom moo tax yàlla ni looloo am ba ñu xamee ni mënaluñ ko dara ñu jaaxle mu ni qaal wa qaala bañ génnee ci loolu mu ni inni dahibun ila rabbi sayahdin allahu akbar yonent yàlla ma ni leen man de maa ngi dem ci sama boroom maa ngi delloo ci sama boroom te moom day xam naa ni ku may gindi la moom sama boroom dina ma gindi dina ma teg ci yoon wu jub wi dina ma teg ci yoon wu baax wi inni dahibun ila rabbi man de damay dem ca sama boroom sa yahdiin man xam naa ni sama boroom mooy ki may gindi man yàlla maa ngi dem ca yàlla moom moo njëkk a gàddaay nee nañu moom Ibrahima ndeysaan jóge ci dëkk dem yàlla musal ko ca safara mu xam ni ñi demuñu mu gàddaay ànd ak soxnaam si ñuy wax saara ñu dem fu ñuy wax Shaam waaye yonent yàlla Ibrahima lii fooram mooy dafa mënoon a ñaan yàlla ndeel Ibrahima fooram mooy ñaan xam nga ñaan moom laay wax ci feebar bii wax naa ko gars yi waxati leen ko mani leen nañ ñaan yàlla mu musal ñu ci nañu takk suñuy masque nañu moytu suñuy diggante waaye nañu ñaan suñu borom nañuy ñaan yàlla muñ ci mën a gindi yàlla muñ ci mën a dimbali moo ñu mën a génne ci situation yu compliqué yi ñuy ne keneen mënu ko kudul suñu borom keneen mënu ko kudul suñu borom kon nag inni dahibun ila rabbi sa yahdin sa yahdin bo di leen ah man daal maa ngi dem ci yàlla mu gindi ma léegi nag mu commencé ñaanam yu am solo ci yontel Ibrahima moo mën a ñaan mu ni rabbi lii min as-salihin yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may ci doom yu baax yi xam nga ñun da nga gis benn couple buy sëy yàlla mayu leen doom fu juta yàlla ma yàlla ñu am doom sama sëy bi ba ba léegi maa ngi ci amaguma doom bu leen yamati ci loolu di leen ñaan doom ju baax gis nga doom ju bon soo ko amee jaata ngi dégg ñu naan seen doom yi yaay yuy jàkkaarloog seen doom billaay su ma xamoon ni nii ngay mel ca maternité balaa lay xoje nga dee xam nga kooku bëggatul doom jooju parce que du bu baax du bu baax ndeysaan moo tax maa ngi ko doon nettali dañu amoon sëriñ daara bu baax Thiès ñu koy wax sëriñ Jéey moom moo jàngal tafsir Abdourahman alquran moo ko dalal ak sama rakk bu ñu wax Abdul Baqi ñoom ñaan ñëpp moom la leen waajur bi joxoon ma ziyaare njabootam yëpp nag macha allah soxna Ayda ak njabootam yëpp rek ala kulli xaal ñoom ñëpp di leen ñaanal imam xalifa maa ngi koy ziyaare moom it ca Mbuur bi mu génnee àdduna moom sëriñ Jéey dafa yàgg jàngale ci Cees ñëpp bëgg ko mu faatu ñu ni dañ koy yóbbu paal xalifa ba fa nekkoon ca jamono yooyu ni nañ ko fa indi biñ ko yóbbu waa Cees yëpp dañu am lu leen métti ndax li mu liggéeyal alquran ci Cees yëpp ñu bëggoon ñu denc ko fa waaye nag ñu ne dañ koy yóbbu paal keroog ndeysaan xalifa bu baax ba mu tombeeloon yàlla yàlla xari ko ajjana dafa wax wax ju am solo dafa ni waaw da ngeen a baax waa Thiès waaye yéen it gënu leen ñoo bëgg lu baax kii doomu doomu paal la léegi bu fekkoonte ni ba mu nekkee Thiès dafa doonoon benn wëyu rek di def lu bon def lu ñaaw bu faatoo est-ce que da ngeen di bëgg ñu dencal leen ko fa ah waaw léegi nag ngeen gis ci moom baax ñu nit ñun ñi nga xam ne suñu suñu doomu dëkk bàyyi leen ñu denc ko fii ñëpp nangu allahu akbar ñëpp nangu kàddu googu gis nga yonent Yàlla Ibrahima da doon ñaan doom <clears throat> waaye doom ju baax la doon ñaan rabbi habli min as-salihin <clears throat> yàlla yàlla nag ma may ci doom yu baax yi loolu de la ñaan léegi nag yàlla dégg na ñaan nga mbokk yi yonent yàlla ibrahima nee na rabbi yow sama borom habli min as-salihin yàlla nag ma may ci doom yu yiw yu baax yi nga xam ni ñoom la ñuy tiitaroo est-ce que yàlla dina ko may wala du ko may bëggoon naa ci ñëw waaye pap samba ni ma ah waxtu yi jeex na de doo mën a dem de ni ma foofu rek nga koy mën a yemale kon nag ñun ñëpp nañu teg suñu baaraam ci ñaan googu yonent yàlla Ibrahima ñaan yàlla may ma ci doom yu gën yu baax yi yi ñuy tiitaroo di tiitaroo seen baay seen baay di leen tiitaroo yàlla may ma ci ñu baax ñi bu ñu fi dajewaatee nag dinañ xam ndax yàlla dina ko may ca doom yooye wala déet ak yan doom la koy may ak yan melokaan la doomam yooye war a am bu ñu fi dajewaatee incha allahu dinañ ci ñëw yàlla yàlla nangul ñu suñu ajjuma nangul ñu suñu jaamu yàlla allahuma habib ilayna al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana wa jaalna min arrachidina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu